tey ñu ngi nii fii ci Popenguine ñu ñëw tey ci Popenguine sur la 135e édition du pèlerinage national Mariam de Popenguine bi nga xamante ni pratiquement tous les Sénégalais les catholiques venant de partout au Sénégal même de la sous-région dañuy ñëw ci daje bi la donc tey ñu ngi nii ci Sidiya donc juste à l'entrée de Popenguine ñu fekk fi benn équipe dynamique boo xamante vraiment dañuy ñëw oto boo xamante am na part ñoom ñoo koy gën am sax ci kàttanu yàlla vraiment ay jàmbaar lañu ay daanaar lañu pratiquement chaque année ñu ngi fii di def liggéey bu doy liggéey bu mucc ayib liggéey boo xamante vraiment c'est à féliciter donc ñu ngi nii jàkkaarloo un leader donc qui nous dira vraiment et quelle est la motive même de leur initiative Kaaw Faye secrétaire général rajo bi Sénégal dañuy euh, def ni nag dañ pour que ñun fi nekk benn entité bu tudd Rebaas Rebaas dafa nekk benn regroupement bu tudd regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal Rebaas c'est une entité qui regroupe tous les ouvriers euh, euh, du Sénégal initiative bi dañ ko jël dimbali pèlerin yi dañ koy def ci màggal ci gàmmu Popenguine bi Dakar bi Boroxaan parce que nous nous sommes dit que balaa ngaa laaj sa dëkk dara dafa doon sa dëkk dara ñun nag comme amuñu leneen am nañ suñu xam-xam ñooy jàppale pèlerin yi pour ñu mën a def euh, benn ak bu mucc ayib boo xam naa ne oto bu paal on le defal gratuitement du ñu la laaj dërëm te ñu ko suñu participation participation aussi bu tawee loolu mooy ab sabab bi waaw loolu que yéen ngi am soutien wu autorité yi parce que vu ko initiative bu membre la est parce que vu l'initiative war ngeen am ku leen épaulé gën leen mën a dooleel ay matériel ay jumtukaay waaw donc est-ce que am ngeen lu leen gën a mën a dooleel pour ngeen gën a mën a continuer loolu sax am na suko mais dañ ne balaa nga leen am ne fa ñun dañoo jël les ouvriers du Sénégal créer Rebass entre bu nekk day def cotisation mensuelle tout tout ouvrier jël sa alal as tuut ñu koy dajale màggal su jotee ñu jël suñu as tuut après ñu jël suñu ko def ci utilité jox dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñun yooyu wax maire yi a suñu bànqee bu ñu ciy jàppale ak bon volonté yi a baax mais avant loolu dañoo def ay cotisation marché bu ngeen boo xam naa ne chaque année dañuy déparé suñu ñu moom ba pare pour ku ñu fekk si tool ñu fekk si tool su ma la déggee bu baax comme da balaa sax yow ñu lay fekk si. Ah. nga fekkee nga am sa bopp. foofu foofu nga defalee sa bopp.

ñun nag ñu ne ñun dañu booloo ba suba suñu laajee autorité mu mu ñoo jox te pourtant ñun fu ñu jox àll wax dëgg yàlla un an deux ans day nekk dëkk parce que dañuy fekk ñu laaj ñun nañu nañu utal ay zone yoo xam ne ne dañu koy defaral uniquement pour les ouvriers ñoo leen soxla ñuy nekk parce que soo fekkee tey à Sindia suñu problème majeur mooy que ne su su buntu kër nit ñi dañuy def suñu atelier te borom kër bu tabax su ñëwee su doon su doon loolu laaj dix loolu moo tax ñun ouvrier ñu ne état bi utul ay terrain yoo xam ne wax dëgg yàlla a commençant par le maire la sax am appel aux autorités supérieures ba dem si président la jàpp ouvrier yi Sénégal loolu la bi incha allah. vraiment comme ça ñu la sant vraiment organisation bi rafet na ñun nag vraiment suñu doole la ñuy jox eh, suñu autorité locale yi mm-hmm. vraiment. bu ci am problème ñu résoudre ko mais nag ñun ñu fayoo ko ñu taxi kenn du ñu fay kenn léegi soo soo paale pièce pièce bi rek taal léegi da nga koy jënd soo ko jënd ñu monté la ko gratuitement nga dem waaw même lekk heure lekk su la fekkee nga lekk ba suur naan ba suur naan ba mandi disons léegi nag vraiment ñu nag autorité nag ñoom ñu ngi leen di ñaan surtout suñu autorité locale yi mm-hmm. ñu ngi leen di ñaan comme ça ñu jàpp ci mm-hmm. nga xam ne moom fi lañ mm-hmm. la a defee suñu atelier voilà nag liggéey bi ñëpp la voilà kon donc amul kenn ci parce que dañuy jaxasoo suñu biir dañuy jaxasoo suñu biir donc amul amul julli léegi li ñuy def dañ koy def Touba dañ koy def Tivaouane dañ koy def euh, Ndiassane dañ koy def Dakaba dañ koy def Kaolack kon donc ñu yaat ci boobu daal ñu nekk koy suñu bopp boo fekk léegi nag combat bi nañ ñëw fekk suñ su ko defee ñun mën ñu jox benn moyen boo xam ne dinañ ci mën a gis suñu bopp daal waaw waaw loolu daal laa laa message quoi